maa ngi nuyu ñëpp kenn ku si turam ak santam di nuyu kilifa diine yi fi fekk ñi nga xam ne vraiment ci quartier bi lay nekk jiital ci imam bi Abdou Aziz moo ci njëkk a dugal dërëmam aussi tey ji aussi teew na mag ñëpp teew nañu chef de quartier yëpp teew nañu mais di remercier encore une fois jeunesse bi vraiment dañ ci def seen doole ñoo def seen alal pour que dañu expliquer mu gën a clair jeunesse Pikine noo daa am lu ñu bëgg am fuñ bëgg a jëm bëgguñu dëkk ay mbalit

te nag mënuñu fañ dëkk aussi di continuer salté ñu ne ñi naan état koy def ñi naan maire koy def interprétant waa eh, maire bi fi nekk wax ko ah, Assane Diop ne leen est-ce que fii mënuñu ko waaye ñu ne noonu état koy def maire bi la koy def léegi nag mënuñu xaar kenn lañ bëgg dañ koy defal suñu bopp vraiment pour ñaan aussi vraiment jeunesse yëpp jug taxaw pour que ici vraiment ñu xam ne dañoo war a set te dañoo war a baax waaw vraiment wax naa jeunes yi rek euh, bu leen buñ leen buñ leen topp ndax nit ak jikkoom dañuy profiter ci événement yu mel ni aussi pour vraiment euh, sàcc image yu

parce que c'est une cause très noble. On est contre la récupération politique. Donc, si, le maire est là, euh, ce n'est pas, notre problème, parce que c'est son devoir. C'est lui qui devait faire ça, mais pas nous. Maintenant, nous, on n'est pas là pour attendre que le maire ou des responsables politiques hein, s'occupent de notre quartier. La propreté, c'est pour nous tous. Oh, nous sommes parce que l'initiative, di def te yalla rek tax tali bi tilim mu koy nettoyer aussi te yalla rek tax vraiment du nek dafa nek acte bo xamanteni dañ koy saluer mu nek acte bu rafet aussi di wo wa pigine waye bon ni li Ousmane Mbengue def ñep war nañ ko mëna def buñ japp ne tay dëkk bi rek lépp Pikine la wala wala lepp Sénégal <laughs> xam lu wala mu wara nek lo xamanteni tay képp ku dëkk sa gox rek war nga mëna xey organiser li won nit ñi ñew japp su ñu nettoyer gox bi ba gox bi set vraiment dafa nekk acte boo xam ñu ngi koy rafetlu lool lool di ko encouragé aussi itam di ko félicité naan koo ni fi lii la rek sa gox ya boo dëkkee si gox bi waroo di dundee gox bi da ngaa war di gox bi du la dundee mais pas ngay jëriñoo gox bi di ko dundee ko comme ni fi homme politique yi nekkee tey bari na homme politique yi fi nekk yoo xamante ni dañuy dundee gox bi kese mais tey bu ñu gisee benn jeune initié lii organiser lu mel ni tey nit ñëpp génn di nettoyer tali bi vraiment dafa nekk acte boo xam ne ñu ngi koy rafetlu sant euh, waa Pikine yëpp surtout jeunes yi parce que lii moom mooy wan ni mbooloo mooy doole gars yi luñ song rek dinañ ko daan maa ngi sant ñëpp ñoo xamante ni ñëw nañ jàpp ci bis bi tey parce que Ousmane Meng moo ko initié mais li mu def nii nekk lu rafet loo xamante ni bu ci waa Pikine sëkkandikoo bu soobee yàlla lépp lu ñu song dinañ ko daan maa ngi rafetlu bu baax parce que set ci jaamu yàlla la bokk dañ koy wax chaque jour mais man vraiment tey affaire dafa maa dafa gis fi ñoo depuis 6 ans 7 ans wala 10 ans vraiment ñu booloo amul xaj amul seen ñëw pour rafetal gox bi bale koñ yi génn mbali bi tonni tali bi loolu rafetlu naa ko trop. lii moom c'est une belle initiative du ñu def lu dul saluer parce que Pikine commune Pikine Nord ñun ñëpp xaar kenn. waruñu cee xaar maire waruñu cee xaar kenn ndax suñu yëf la te ñun ñoo ko moom kon duñu def lu dul setal suñu gox ndax ku ci ne balaa ngay dugg sa kër ci mbedd mi ngay njëkk a jaar comme nag sa kon mbedd mi dafa war a set avant tout loolu nag moo waral tey suñu teewaay gi ñun ñëpp ñu génn ñëpp a génn vraiment jàpp ci affaire bi ñu setal suñu gox te incha allahu rabbi nii lañ koy doxalee moo ñu war daal setal suñu gox te ci la ñuy nekk te ci la ñuy mës a ne incha allahu rabbi. bëgg nañ ndax lii mooy lislaam sax lii sax la yàlla suñu borom bëgg ñëpp doon benn génn dindi salte bi fi nekk war ñoo xaar kenn duñu ko dindil ñun ñoo ko dindil suñu bopp. te yéen sax dama ne set ci ngëm yàlla la bokk set ci ngëm yàlla la bokk te bay say weewi tànk yéen tamit ne ki gën ci nit ñi mooy ki nekk ak ñoom di leen jariñ xam nga li ñu def lii nga toog sa biir kër rafetul da ngaa a génn ni ngay waxee ci lislaam noonu nga war a génnee da coono bu tàng jër ak gaay waaw nii la yonent bi xamoon te jubluwuñ ci lu dul setal quartier bi setal Pikine lépp set te doon benn bi ñu doon benn di liggéeyandoo rek moo dëgg moo gën a rafet lépp waaw yun yàlla yoon saa wax rek nee na jullit ak moroom dafa war a mel ni comme tabax dañuy duggante seen biir tey loolu laa fi gis loolu tax ma kontaan macha allah macha allah te lii confirmation la rek confirmation la rek gën naa yaatu nag dañuy ñaan yàlla suñu borom mu gën a yaatu dem ba buy amati mu yaatu biir Pikine gépp kenn bañ a des daal incha allah li moom sant yàlla la kontaan naa tey trop.